yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al te bu leen fàtte ci bésu tay bi ñetti fan ci weeru octobre atum 2024 ci la jàngalekat yi nag waroon dellu ci classe yi noone la ñu ko nemmeeko fii ci groupe scolaire Daarul Alimil Xabiir ñëwoon nag ngir càmbaraat programme bi fexe ba mu gën a ñoŋ. ci wàllu cellule pédagogique ku ne xam nga njëriñam euh, jàngale day day tegu ci programme day tegu ci planification day am évaluation day am remédiation loolu nag pour que élèves yi bokk benn chance il faut que jàngalekat yi liggéey en cellule nga xam ni tey élève bi bu évaluation jotee du gis du xàmmee ñaari professeurs yi seenum jàngale euh, loolu nag moo tax ba tey ñu daje ñoom seen bopp ñu constitué wu en cellule ñu jox leen objectif gannaaw bu ñu xoolee programme bi ñu proposé ñu ay planification ak ay date d'échéance euh, yoo xam ni si la évaluation de amee. fii nag kilifa yi ñoom ñi ngi xam ne ne matukaay yëpp nag jël nañu ko ngir nag bu ñu ci tollee juróom-ñaari fan ci weeru octobre njàng mekk njàngale mi mën a door fii ci groupe scolaire Daarul Alimil Xabiir. disposition yi ñu war a jël ngir ñu mën a tàmbale njàng mi jël nañ ko. classe yi taxawu nañ kook lépp te tey sax de dolli ko waat ki nga xam ne moo déclarant responsable bi dafa insister ne nañ pompe toutes les classes nañ désinfecter toutes les classes nañ désinsectiser toutes les classes avant benn élève de dugg biir classe déjà xam nañ ne nawet bi la situation inondation bi tax na yooyu gën naa bëri kon loolu c'est insister une mesure boo xam ne di seet dolli ko waat mais toute les dispositions sont prises pour que bu soobee yàlla le 7 élève bu ñëw soo duggee classe am nga fekk jàngalekat bu la jàngal. ñoom jàngalekat yi nga xam ne nag teewoon nañu ci ndaje mi rafetlu ko gannaaw bu ñu xamle ni dina leen may nag ñu gën a gindeeku ci li nga xam ne moom la ñu dëtmal ci année scolaire bu yees bii. vraiment corps enseignant yëpp ñëw teew nañ corps professeur bi yëpp ñu ngi teew nañ tey ci la 3 bi ñoom ñëpp ñëw nañ euh, waxtaan nañ tënk nañ yu bëree bëree bëri ci ni ñu war a euh, doxalee ci année bu bees bii. Euh, du deux mille vingt quatre deux mille cinq euh, wax dëgg yàlla euh, poñ yi ñu war a waxtaanee yëpp waxtaanee lañ ko ci naka lañuy ñuy améliorer dégg nga maam façon méthode bi ñu nekkoon doon ci doon ci liggéey. voilà di leen di leen wax ni leen école ubbi na bu defee kenn ku ci nekk rek foo mën di nekk ci Sénégal nga ñëw xam ni am nga un charge am na lu bees loo war a def. nga jëm ci daal di jublu bu baax a baax a baax ak yitte ak Pastef ku mat sëkk incha allah. groupe scolaire Daarul Alimil Xabir daal dina nag jotee ci juróom-ñetti élément yoo xamee ni ministère de l' éducation nationale moo leen ko jagleel ngir nag ñu mën leen encadrer performance yi gën a am solo loolee nag ñi ngi ci bàyyi xel langue anglais bi nga xam ne ministère de l' éducation nationale itam nag mooy njàngale mi ñu daal di ko door ci classe élémentaire yi. yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.